et compagnie dañ daal di ñëw itam sàllu actualité lay réew mi si nu gën a yaatu exactement mbiru Sonko ak ki xam ne que moo di yi nga xam ne itam am na si digganteeg li nga xam ne que moo euh, euh, bu yoo yor que ni xaas bi nga xam ni itam tekkee ko fa des na ko daal di fon fa ci itam ginnaaw ba jàpp ni euh, li nga xam ne que moo di mbir bi nag seetal nañ ko li nga xam ne que moo di Cour des comptes car si li nga xam ne que moo di quatre-vingt-quatre ak li nga xam que modi 46 recommandations nul n'a été cité son nom manam du fenn fo xam ne bind nañ fa turam moom ki nga xam que modi Mambay des na dal di from fàccee sinu mu gëna yato exactement di dal di yexi tam lu dal di ñeel cette euh, forte décision bi nga xam ne Ousmane Sonko jël na la dernière minute ak li nga xam que modi di ñu daal di faree ci coalition Jomay 2024 nek si li nga xam que modi euh, présidence bi jëmono ci fa nga xam ne itam mooy zaanu ko palé nak ñoo dal di sàkku ñi dal di li nga xam que modi retenir képp ki nga xam itam da nga bëgg a li nga xam que mu di réew mi maanaam jàppale ni itam euh, li nga xam ne que mu di passeport euh, diplomatique yi ñu utiliser daal nekkoon li nga xam que mu di ay ministre Ousmane Sonko ak li nga que mu justement son gouvernement retiré neen yooyu de li nga que mu di passeport diplomatique de na ko daal di faram-fàccee si nu mu gën a yaatoo exactement lu nu mel nag am na ñoo xam ne itam ñu koy daal di ñaawlu maanaam euh, suscité na benn que li nga que mu di vague d'indignation si ñi nga xam ne itam ñoo daal di faree si li nga xam ne que moo di APR et compagnie aji Mbergane Kanouté dem

Euh, du euh, premier ministre manam daal di exactement ay mën-mënam loolu lepp dañ si di ñëw Juan Branco tey ji nak lay daal di jàkkaarloog ak li nga que modi di que euh, commissariat bu li nga que modi Madrid mu daal di porté won peut nak nag si yoon ak wàllu kiyanal daal di yóbbu ñaari li nga xam que modi di ñaari commissaire autant que pour moi Adrame Sarr ak ki nga xam que modi commissaire Sarr le lepp dañ si daal dikk si nu Sangare ak commissaire Sarr alors. donc dañu daal dox suñu waxtaan léegi léegi incha allah euh, euh, alaaji euh, ñu daal di koy dooree ak mbiru ki nga xam ne moo di Mame Mbaye Mame Mbaye Niang nag mu ne euh, yëf yi daal dina koy li nga xam ne que moo di setal li nga xam ne que moo di Cour des comptes euh, si li nga xam ne itam Ousmane Sonko yëkkiwu na ko daal di koy tegoon si kawam mu daal di jur li xam ne moo di benn bataille judiciaire grande instance daanoon ko ñaari at noo xam ne du ko daal di euh, ñaari weer yoo xam ne du ko daal di tëdd ak deux cent millions naka noonu Mame Mbaye Niang appel si li nga xam ne que moo di xaalis bi procureur aussi daal di inter interjeté appel aussi si li na xam ne que moo di peine bi bref li nga xam ne que moo di Cour suprême daal di ko mujjee jeexal loolu moo daal annulé la candidature d'Ousmane Sonko si li nga xam ne que moo échéance 2024 yi ban analyse ngay dal def justement à ah, Mame Mbaye Niang bi kenn nii euh, mbir yi jeex Cour des comptes seetal nako aladi waaw non bon xam nga Sénégal mom li kenn dofatu fi ñepp yew quoi bon man dal limay wax dal moy li am solo parce que président Diomaye wax deug yalla wax na wax jo xamni wax ju daw yaram la bon nee dal kep ko koo amna lo am yoral état na nga ñew ci ndiek ak ci teranga wa na nga ñew ci ndiek ci teranga hmm. bu ko defé nga rembourser parce que président Sonko du mom rek a wax lu démé non aussi ñiko wax bëri na mbay am mbay ñaa bu dee deug xamna bu dul deug xamna wa yenn yi nak yeexal jël la quoi xam nga lima dal lima koy conseiller moy na def ci sutura waxtaan ak gars xam nga niko jomay waxe rek ci waaye meuna jël dal rembourser mo upp solo quoi xam nga parce que limu tek président Sonko metti na président Sonko and ak ngorom kon nak bu ko kenn gore xam nga parce que xaalisu askan wi askan wi ko mom te xaalis bi dañ ko wara delo ci askan wi waaw man nak bala ma gëm ay waxam aussi foog ma déglu benen parti bi waaw mom nak bu ko nexé mën genn setal boppam ku mu neex nga setal sa bop waaw parce que fi lepp lu fi way wax rek amna lu si laale kon nak dal lima len di conseiller ñi nga xam ni jël nañu xaalis réew mi li jomaay da leen a woo ci teraanga ci njekk ci sutura ñu xam seen bopp loolu daal moo si am solo daal. Hmm. alors donc donc da nga jàpp ni Mame Mbaye Niang mënu see setee noonu exactement. non mënu see set mënu see set parce que ñi ko wax bëri na du Ousmane Sonko moo ko yeex a wax te Ousmane Sonko li ko dal yëpp ci problème boobu la ko hmm, dalee. Hmm. kon nag dafa nekk problème boo xam problème bu sérieux la xam nga du lu lu ndaw daal ba daal li ma koy ñaan daal fekkee duñ koy waxal mooma. na jéem waxtan ak Diomaye président Diomaye bu ko defé ñu def ko ci sutura lu mu ci mëna a mu delloo ko quoi lolu mo am solo parce que askan wi moko mom quoi té li du askan mais yoon acte euh justement dan sen leader di ki na xam ne que moo Ousmane Sonko ni euh benn ko rapport indiwuñu ko ci allant dans sens waaw non xam nga li fi nekkon mom ñëpp xam nañ ko li fi nekkon li fi nekkon li fi nekkoon Euh, maa tey dañu fi nekkee woon ak lu leen neex ak seen i nit fii nag dafa nekk euh, kii régime boo xam ni muy Diomaye di président Sonko dañoo tëdd njaaxaanaay lépp loo xam ni ay daan la rek amul frère Sonko nga amul magu Sonko amoon nijaay Sonko lépp dañu koy teg ci yoon waaw lépp te incha xam naa ni lépp dina leer incha allah bu neexee yàlla. waaw donc jàpp na ni li fi nekkoon justice am ndey wala justice amul ndey euh, ku mu am ndey ku mu amul ndey boral Ousmane Sonko daal di koy daanoon si mbirum ak ki nga xam ne que moo di Mame Mbaye ah mais loolu la rek loolu la rek loolu te ñëpp teg nañ seen bët aussi ñëpp si teg seen bët parce que ñaata yoon la yoon jox Ousmane Sonko dëgg yu jël yoon woowu sànni ko ca àll ba xam nga kon nag moo lay wan ni rek li fi nekkoon bon képp ku bokk ci ñoom rek xam nga ak ku bokk ci ñoom am na wuute loolu moom ñëpp si tegoon seen bët ñun ñaanuñu ñu ko yàlla parce que dañoo bëgg ñun li fi nekk aussi lépp rek mu teg ko ci yoon képp ko am dëgg rek ñu jox la dëgg waaw loolu ñuy dund quoi. Euh, beneen procès digganteeg Mame Mbaye ak Ousmane Sonko mu nekk une demande euh, si askan wi exactement. Mm. est-ce que yaa ngi peut-être xaar euh, que ni di ngeen amaat li nga xam ne que moo di un procès peut-être yi fii daal di war a mën a leer jëmale si mbiru li nga xam ne que moo di Prodac. non dina leer dina leer xam nga ñoom fi mu nekk dafa am rek ñu ngi ci biir quoi ñu ngi ci liggéey bi bu ñoo jékki-jékki song ñoom ñëpp. mais moom incha allah moom lépp lu si lënd moom incha allah moom yoon dina ko leeral ba mu leer nañ te xam naa dëgg buy am rek Ousmane Sonko moo koy am quoi. Ousmane Sonko si naka la nga war a amee. non moo koy am parce que Ousmane lépp lu mu xas a wax rek am na si lu leer quoi parce que du waxantu parce que li nekk ci moom a tax muy ragale suñu borom. Hmm. nit ki nag bu ragalee yàlla rek lépp lu muy seede wala mu koy wax rek dëgg lay doon ci moom quoi. Hmm. Hmm. alors donc mi ngi noonu exactement mbiru ki nga xam nekk Ousmane Sonko ak ki nga xam nekk moo di euh, Mame Mbaye Niang mu di li nga xam nekk moo justement euh, yenn rebondissement allant dans sens ki nga xam nekk moo di Mame Mbaye nag jàpp nañ li nga xam nekk moo di des comptes euh, na ko seetal na xam di mengalé won ak li nga xam nekk projet bu Prodac alors donc ñu daal di dessiner ba ci walu wàllu mel daal di ñëw éclaircissement yi nga xam ni mom la journal bi di yooyox daal di indi exactement sen Saliou donc parcourir na exactement daal di sur les lieux du crime crime yi nga xam ni itam jàpp na ni li xam nekk moo di boobu rek projet bu Prodac yëkki woon na xool nag juboon na fa nga xam ni itam maisaanu ko mbi jëm na réew ma ki nga xam nekk moo di Amadou Ba soulevé woon na aussi boobu de li nga xam nekk moo di débat jàpp ni dafa daal di jàpp ni pour Mame Mbaye Niang moom moo daal di li nga xam nekk moo di ressuscité li nga xam nekk moo di boobu de li nga xam nekk moo di dossier alors que ni amaan na ñenn ñoo xam ni itam ñu ngi woon doon ko daal di li nga xam nekk moo di càmba alors ñu daal di ñëw si li nga xam nekk moo di journal yooyu yor euh, taxaw seetlu bi nga xam ni itam euh, def na ko si euh, par rapport ak wàllu wunu mel fu mu toll nii nag donc mi ngi noonu par rapport ak li nga xam ne que mu di projet

setna set na xamni la mom len ni it moom daal di tegoon si deram ni dafa daal di lalé si li nga xam nekk moo di li nga xam nekk moo di Prodac daal di tollu si li nga xam nekk moo di milliards et que li nga xam nekk moo di Cour des comptes moo daal di seetal si li nga xam nekk moo di pages yi nga xamni ni yullu nañ ko ak li nga xam nekk moo di quarante ay recommandations d'après li nga xam nekk moo le journal mu ñuy indi li nga xam nekk moo di détail sa la nga xam ni xew si li nga xam nekk moo di tout d'abord néna la signature d'un marché de gré à gré avec la société euh, Grune 2000 est entachée d'illégalité. Euh, l'article 116 du décret numéro 2014

Euh, euh, euh, ni mon responsable la sa li nga xam que moo di yooyu de illégalité lool nak d'après article 27 sept da di wax du code des marchés publics kep ki nga xamni ne itam da nga nek ministre wala kon kep ku daal jiite lu mu mën a doon nga daal di signer contrat boo xam ne itam dëppoowul yone yow tu es responsable par rapport ak walu wunu mel alors.